di nuyu njëkkee ci Pape Alé Niang mi tey nga xam ne moo war a defee maa ngi ñëw ci kanam ci moom tuuti rek moom moo yàgg ndaxte comme ku démb marche bi Macky Sall ma tooy loolu ba ñëwuma nit ndax xol bu jeex ndax sama xol dafa fees may bañ sama rakk di génnaat ndax naqar yi mu fekk Sénégal yi suñu xol dafa mel xoolal dañu leen naan fi ñu jëlee ak fi ñu jëlee ku gën waaye ngir yàlla nañu bàyyi fi ñu Abdoulaye Wade bàyyi woon quoi arrêté parce que fi ñu Macky Sall ñooy baax il faut avoir le courage la ñu fanweeri at man ak moom Pape Alé mi fanweeri at papam nekk kay kay di fa jaay ñu wàcc ñu mujj papam toogal ko papam waxtaan moom doog xam naa Macky Sall xam naa Pape Alé xam naa Diouf Sall di nuyu Modou Niang nii sama ginnaaw mu ñu kii di sama xarit di sama soxla amul bis bu ñu déggoo téléphone man moom ak Baye Modou di nuyu Birame Seck from si nuyu moom waaye di ko sopp la nit ku diin la nit ku bëgg réew ba ci mbóot ñi nga xamante ne moo génn àdduna di nuyu Ousmane Sonko man ay moom dafa la rek laa Ousmane Sonko bi xalifa nekk ci Kaffrine mu ne ko si damaa dem ba Serigne Dore Casamance rek seen yaay absolument mu ngi fi tur Xalifa Sall laa ñëw seet si la Ousmane Sonko tamit di ñëw ci Kassab la seet si Xalifa Sall parce que bu ñu amee ay compte de valeur dañ leen di téye keroog yaayam dafa wax bay jooy ba jox ma numéro ba ma joxoon ma ko Xalifa ci Kassab maa ngi naan ko léegi sa sœur Penda Sonko ñu toog ñaari fan dem diggante wu man gëmuma ay kii parti bi la nekk kii fee la nekk xam na lañ jëm dañu changé réew moom laay wax ku mel ne Dieng Dieng seen réew ay dëmbooj bi nii bi muy ñëw seet si xalifa xoolal kaso bi ay dëmbooj ruqruqruqaan yi ñu jaar ba mu mën a tegante xalifa ba kenn mënu la koo wax nga xam ne kii daam la boo xamante ni garab ba ko gars yi teg magi bi bu yëpp ne ay dëmbooj moo fa ñëw rek mu wàcc fukki camion si mais fa ñu ko jaarale ba mu gisee xalifa yàlla rek ko xam mu ngi laaj ndax taxawaayam ak bëgg ak conviction mu am Elentine mbiru ma ko mais jàmbar la dame de fer la man loolu laa gëm Nafi moom kay def naa ci moom benn vidéo bi ci internet bi demee xool ko ma ne ko say doom bu ñuy dox du ñu sigg ci kaw te teel xam ni way la woo xam ne du fay nit ku valeur dañ ko soxla ci ku mbalam ñu sant dama koy wax ak moom. te du bëgg ay homme de valeur nañu bàyyi naan réew mi ñëpp a yem ñëpp yem ni ñii baax ñu baax ba tey ñii jomb ñu ngi jomb ba tey Cheikh Bamba Dieng mi ne am na loo xam jomb na ko ndax bàyyam. keroog maa naan ko maa ngi yor sa benn vidéo parce que boo déggee li mu jëm ala bi nga nga waroon si bàyyi yal na yàlla dugal sa fan. fi ngeen teg suñu fan bi ñu ko teg lu ci ñun ñu soxla docteur Babacar Diop mi ngi nii seet naa ko ba ci kaso bi dafa moom visite de contact ñu toog ma waral ngeen gis Guy Marius Sagna juge bi ma dafa am ñu koy gis am ñu gis man ko loolu tegul ci moo tax démb maa ngi koy wax gis nga dëkk bu justice bu baaxee lépp wax na bu justice boo bëree lépp bon na man nag li ma wax dama am courage wax maa ngi leen jël leen exemple ci Ndeye Diop magistrat damay dëjoo bureau bi waxtaan ak moom mun ma Ablaye moom ma ko waxal ci rajo Live Presse ndara ñu ma wallahi tallahi Ablaye bu ma nar a lekk benn dërëm boo xamante ni day jóge ci ma yàlla faat léegi moom ko wax ci bureau man ko sangi bi ci jóge ñu ne li yéen la ñu am moo tax dem moo ko ci marché bi am na procureur yu mel noonu am na magistrat yu gën a baax mooy mooy mooy justice bu baaxee dëkk ba lépp bu baax dëkk bu bonee lépp bon ñun lii ñuy xeex ak tey yéen ñi nekk ci kanam xeex ku leen ko pour pour suñuy doom la ak pour suñuy sët ak xale yu ñëw boo am day xeet ci long terme. loolu loolu la ñuy def lii mu nekkee boobu ba léegi di ko xeex teggiwul tànkam te nekk ndaw waaye nekk mag Pape Alé yal na yàlla guddal sa fan. le sëñ Babacar Si ñaan naa la ñaanal yal na la yàlla làq fa yàlla fa làq yëpp bu fa yàlla làq loxo bu la jotee ba la làq. asalaamaaleykum